salaamaaleykum mbokk internetu El Vision Média ñu ngi leen di nuyu fi ñu leen daan nuyoo ci seen vision d'ensemble tey ba tey ñu ngi ci suñu ni ñu doon def di wàcc ci terrain bi xool inondation bi nga xamante ne tey dafa sonal askanu Diamaguène Sicap Mbao ak askanu Sénégal tey ñi ngi am invité ku mel ni Abdou Samad Diouf nekk le coordinateur de Sénégal ma fierté en plus bokk ci plateforme Sénégal zéro inondation Abdou Samad ñu ngi lay nuyu baax di la ziar. Sidi maa ngi veille, fay di am bu baax a baax euh, ci dalal bi hmm. euh, aussi di nuyu waa El Vision Média bu d'abord euh, avant tout ma nuyu à jàmm gën Sicap hmm. donc tamit présente wu man maa Abdou Samad Diouf hmm. nekk le coordonnateur des réseaux des volontaires pour le développement de la banlieue nekk aussi le coordonnateur du mouvement zéro inondation sommes aussi membre de la plateforme nationale pour la réduction des risques et des catastrophes mu sommes ben kuréel bo xamné dañ ko taxawal ci Sénégal luy xeex walu risque et catastrophe mu sommes ci direction de la protection civile du ministère de l'intérieur voilà donc euh, am nañ euh, casquette yu ñu yor mais ci développement mais comme on parle d'inondation donc vraiment di am mbégte bu baaxa a baax tamit euh, di aussi ci liggéey bu am solo bi nga xam ne yéen a koy liggéey mu nekk un travail remarquable loo xam ne donc kenn du ko naatable ngeen def ko ci wàllu ci professionnalisme def ko aussi ci li nga xam ne mooy étique ak déontologie donc vraiment loolu ñu ngi leen ci jaajëfal du nuyu waa jàmm gën si kàmbaaw bu baax a baax a baax merci Abdou Samad ni mu dugg seen noonu kontaan nañ ci dégg ngeen kon Abdou Samad li nga xamante ni moom lay représenté wu yëpp ci biir Sénégal kon donc quelqu'un la boo xamante ne tey suñ ko tàllalee micro aussi war nañ ko ko mais tey li gën a tax ñu ñëw fi Abdou Samad ndox mi ñu gis ne depuis bi mu commencé taw ba léegi askanu jàmm gën si kambaaw nelawatuñu yan jafe-jafe ngeen ci jànkonteel waaw donc jafe-jafe yi euh, nekk na jafe-jafe yoo xam ne bari na mm-hmm.

boo xoolee commune bu nga xamné moy mooy commune Diamaguène ci Mbao dafa nek ci ben zone bo xamné tay zone nappe phréatique bi dafa nek lo xamné dafa saturé dafa remonter té ci walu assainissement dafa bari lo bari lo xamné ne dafay manqué ci biir commune Diamaguène ci Mbao mu bari aussi tamit ay quartiers yo xamné c'est des quartiers périphériques manam ay quartiers yo xamné c'est des quartiers non lotis nga xamné nit ñi dëkkee ak tamit zone yi nga xamné tay peut-être dëkk nañ fa tay nekkoon na ay zone yoo xam ne ay seyaan la woon ci ay jamono. ba bi nga xam ne nawet bi bëriwaat na. ndox mi commencé waat di bëri. Euh, manam ndox mi du am problème canalisation mhm. posé li nga problème inondation ci depuis presque les années 2000 mhm. ñu commencé mhm. donc mais 2005 nous avons commencé di euh, mais depuis lors nous ba légui askan bi ñu euh, voilà donc mu donc ren aussi gis nga situation bi ni mu demee hmm. donc population bi vraiment ñu ngi partagé nekk ci ndox mi di hmm. sonn foo dem qui bir commune bi pratiquement ñu ngi ñu ngi ci ay jafé jafé voilà sur les 70 quartiers yi dans la commune. Mhm. bo ci génne manam quartiers yi nga xam du du du du euh, am ndox. Mhm. Mhm. bari wul mais mun na né ci 65 quartiers yi nekk ci commune si bir commune bi sur les 70. daanaka yépp day inondé. voilà lolu aussi tamit ay problème la yu askan très bien yaa ngi tudd 2000 ba 2005 ba tay jusqu'à nos jours c'est 2000 depuis 2020.

si je suis ci ay séminaire le monde munti dem ci séminaire ak état mhm. damay continuer de plaider li nga la situation de dans de euh, ci biir c'est vrai mhm. canalisation yu fi mhm. ci biir combat parce que 2008 côté yooyu amna ay canalisation yu fi defar de démé ci ci biir le bi na ci parce que canal yi nga xamné sax dafa fat ci année lañ ko am ko rappelé année bi après ci dañ ko defar mu nekkoon en 2007 en 2000 en 2000 en 2007. Mhm. Wade ñëw na fi keroog tali maam jaar. dal di dem. après programme bi nga xamné ne moko don moko don piloter donc ak Mansour ndoy mhm. ci lañu ñu defaree canalisation ci lañu ñu aussi station pompage bi nek Guy Sappour. voilà donc aussi bo démé biir Sicap Mbao. Mhm. long lg Mbao bi. dem route mhm. nationale. ci lañu ñu canalisation yi. bo ñëwee ba jaar buntu keur Tabassi bi. gis nga ko ak tali bi ay canalisation bon loolu mais mais bon loolu yëpp gis nañ ko mais dafa melni ba légui nii inondation bi. dara dara dara dara wàññeeku ci parce que tamit so xolé loolu nga wax yëpp ba léegi gars pompe rek les ñuy utiliser quoi ba fi fi la fekk ni tamit yaa une pompe ñu demal gis tamit ñeneen di pompe est-ce que pompe bi mooy solution chaque année ñu répéter les mêmes choses inondation yi di gën bari. voilà c'est ça xam nga loolu laa doon expliquer. xam nga hmm. bokk na sax ngay dégg ma hmm. canalisation yi dafa des canalisations bidon. Hmm. c'est-à-dire que problème bi mooy maanaam booy faire. Lo xam ne dafa war nekk durable. da nga war a def lu baax. loo xam ne ëllëg ko def tey ñaari at ñetti at mu amaat problème man du ma gisee noonu damay gis ni mm-hmm. soo demee ba war a defar lu toll ni canalisation mm-hmm. da nga ci war a met de moyens mm-hmm. yi nga xam ne moom nga ca war a def nga xam ne nit ñi fii ak cent ans dootuñu am problème inondation mais bu fekkee da nga defar canalisation même pas trois ans nit ñi commencé waat di dundaat la nga xam ne dañ ko doon dund day nekkaat maanaam li nga defaroon day mel ni zéro donc loolu moo tax ma ne cest à ñu ngi ñun li ñu mën ñu ngi nekk l'avocat xam nga li ma la mhm. euh, de la population la ñu mën mooy wax mhm. wax ba ñu ngi koy def mhm. ba nga xam ne ay yàlla may nañu am occasion di toog ak les autorités compétentes yi nga xam ne ñoo gérer loolu ñu ngi cay def la ñu mën soo gisee tey le combat ñu koy toujours di ko continuer di mëne ba tey nga ñuy gis ñu nekk sur le terrain parce que ba tey problème bi dafa des soo demee nag dans le dans le cadre global boo demee tey ci biir banlieue bi peut-être am na ay communes yoo xam ne seen problème wàññeeku na yu mel ni ay Djiddah Thiaroye Kaw ay Yeumbeul Nord

est-ce que ñoom ñi ngi gestu askanu jàmm gën si kaw mbaaw en tant que yéen tamit xamante ne ay homme politique ngeen chaque jour yéen la ñuy gis euh, ci devant ci kanam ngeen xeexal population mais est-ce que seen xeex boobu yéen yéen nga ngi am ndam. waaw effectivement parce que tey yoo boo xoolee <laughs> loolu nekkul soxla war a jàmm gën si kaw mbaaw benn avocat la am. muy kan man rek ngay dégg maay wax ci rajo yi maay wax ci hmm. maay xeex. loolu yàlla rek a tax ma koy wax. Hmm. parce que man. non mais mais mais Diamaguène Sicap Mbao am nañ député. bu toog assemblée nationale wala leen tere del am nañ maire. waaw dama ne. cest à dama ne la ci wàllu inondation laa la wax. Hmm. du ñu wax inondation ci Sénégal sax la wax. te tudduñu Abdou Samad d' accord loolu nangul naa la ko. benn bi mooy. Hmm. ki ngay dégg toujours muy wax. ci rajo yi di wax ci télé yi. goudi ak bëccëg ci journaux yi ak fo dem di plaider. Mhm. pour que Diamaguène Sicap Mbao inondation jóge fi koku kenn du ko laaj. Ah parce que mère da nga bok ci plateforme bobu tamit hein ci plateforme bi. moy hmm. li ma lay expliqué. Hmm. plateforme bi kuréel la. bo xamné dañ lay dañ lay inviter yow. nga cay joxe sa xalaat. Hmm.

mooy que ne lii liewuñ ko sax ak politique parce que dañu japp ne li manam acte la bo xamné un bon citoyen da ko wara taxawé ci dëkkam mhm. parce que c'est un phénomène naturel muy inondation yalla moko indi mhm. mu nek lo xamné tay ñun la koy solutionné ñun doomu mhm. adam yi la wara doon parce que ñun biñuy ñuy dugg ci amer inondation nekutone ay problème politique mo tax ñu dugg ci dañu gissone ne tey suñu askan problème amna ñu ngi loon population bi ñu jàpp ne tey ñun mhm. suñu wareef tey dafa war a doon ñii dëkk suñu nekk suñuy dëkkandoo mhm. dana am lu mu jur mhm. suñu taxawaay dana am lu mu jëriñ ñu ne kon ñun waruñu am droit toog di seetaan maanaam defuñu ko parce que yoruñ benn benn nombre tànk boo xam ne war nañu mën a obligé ne da ngeen war a def lii wala dangeen war a def laa mais dañu jàpp ne ab nit su hmm. dëkkee ci réew hmm. dañ ko am luñ koy xaaree ci réew ma hmm. mooy que mu sacrifié wu pour les autres def li nga don de soi qui jàppale askanam ñun yàlla moo ñu ñu nekk ay leader te leadership boobu noonu warul nekk rek lu yem ci ci ci naxate wala nekk aussi. ci ci wax. dafa war a nekk loo xam dafa nekk ci ay jëf. parce que man tey boo ma xoolee ma fekk. pratiquement nekkuma fi jamono yi mais chaque jour. Madame, deux heures du matin je suis mhm. damay pomper du matin au mhm. soir mhm. jour et nuit parce que c'est juste pour soulager au moins les populations mais tey li nga xam ne moom nga wax barki rencontré le gouverneur de la région Je xaarama foofu ma parce que tamit da nga acteur de développement tudd homme politique tout encore inondation est-ce que depuis que nga nekk ci inondation ba léegi gisagum acteur politique de di sur le terrain comme yow ni fait koy pompes pompe waaw xam nga mooy. fii ci jàmm gën si kaam mbaaw quoi xam nga non loolu. soo ko demee yow mun nga def micro trottoir. loo xam ne. cest man sax du ma du ma placé pour wax la ko. parce que man du ma fi nekk fii di vanité wu. non mais man nag que xam nga wax nga ko ci sa début wax. wax naa man la duñ wax inondation ci Sénégal. waxuma la jàmm gën si Kambaaw. d'accord te tudd ñu tudd Abdou Samad. cest yàlla dafa def. ma am ci taxaway bo xamné waxuma la au niveau national mais mondialement. dañ ma parce que mais ci homme politique yi fi politique mhm. li cest dire sax ñëw rek ci homme politique rek mhm. c'est une obligation. Mhm. pour tous les citoyens. ok Sous situation bu ci ab ku ci am mais day ka nga moom moo yor baatu askan wi tout à gën a yellool ca ka nga xam ne moom mooy leader bi nga xam ne mhm. moom la nit ñi yaakaar jiital ko pour mu war a dox si soxla population bi kon ñooñu ñoo war a jóg mhm. yéen nit ñi ne leen jóg leen kat lii c'est problème boo xam ne catastrophe la mhm. pour askan bi ñun ku ci nekk am na lu ñu war a taxawe nga war a nekk ki xam ne yaay la voix des sans voix li nga xam ne mooy seen jafe-jafe amuñ ko pour qu'au moins nga soulager leen mooy que ne war nañoo pomper ndox mi amuñu machine nga dem outil indi jox leen jàppale leen. donc loolu mo wara nek lo le rôle. de manam mhm. du politicien. c'est-à-dire que ñun nag. Mhm. malheureusement suñu suñu politiciens yi. Mhm. comme ni ma koy expliquer xasuma kenn. mais réalité bi mo am. que ne souvent bu population bi nek ci jafé jafé pour nga gis len da fay jafé yaay dégg effectivement moment bi ñu nek pour nga gis ci tay politicien mu wacc sur le terrain jafé na. mais ñun. avant politique non mais euh, monsieur le maire am na équipe bu mu déployé ñu ngi wàcc sur le terrain di liggéey. waaw no xam nga dama ne soo may wax. Mhm. xam nga ki ñu jox mhm. nattal ko ne ko yow lii suñu alal la. non mais budget budget boo bokk ci. non da ngay def man. inondation du compétence mair maire yi da ngay déglu ok cest à dafa am loo xam ne ay fonds de concours. waay ay dotation lay doon ci ñoom. Mhm. ñu leen koy jox. le maire. tey warul toog sax. man dama dama yor budget. Mhm. man dama dama yor ndombo tank pour le moment. mais yow yaa ngi ak gouverneur. non non non attends defal naa c'est-à-dire loolu yëpp li indi volonté la. volonté la c'est-à-dire nit da ngay am li wax stratégie. ok xam nga li wax c'est l'stratégie ba ñewul ma ci budget bi attends mhm. c'est l'stratégie qui détermine les moyens. ouais il faut que na am li wax euh, open mind. esprit d'ouverture. ok mëna wax ak ñep mhm. am des relations. ba paré am ay pexé tout à xam nga tey quand tu as un budget de presque un milliard. c'est-à-dire le maire son combat pas de faire ay canalisation Oui. loolu ñëpp xam nañ mhm. parce que nos compétences transférées les collectivités locales. Mhm. xam nañu bu ci ban ak ban. mais c'est une affaire d'État mais la mairie c'est un démembrement de l'État. Mhm. donc moom le premier à être à à être devant. pour assister les populations. tout à fait donc du du xalaat sax ñuy taxaw euh, euh, ligne nii maire bi euh mom ci bopam mom hmm. moko wara def wala waru ko def. Hmm. c'est-à-dire que même bu amutoon ñaar dërëm. mom hmm. askan bi nek ci situation mo wara a genn a génn. ca kaw. waaw mais ñun ñun ñun jot nañ ci ko parce que amna émission buma defone ak euh, ki yor wàllum ndox bi ci côté mairie bi mais xamal na ni ma du xaalisum mairie mom maire moy génnee ci poosam jox comme Abdou Samad ni muy génnee ci poosam def. ñaata la joxe. non nee na amul ñu budget maire mooy génnee ci poosam. di joxe ñaata la génne xam nga cest à yow loolu ngay wax. c'est-à-dire mhm. waxu xale la. waaw ah, lu tax c'est-à-dire non attends. non mais bu ko xeebal waxam moom loolu la wax. non non non xam nga tax ñu koy xeeb. Hmm. man bu ma demee ba dégg euh, ñu ne maire jënd na moto pompe buy jar 60 000. moto pompe 60 000 moto pompe yooyu 60 000 lay jar. loolu hmm. lu ma lax ci machine kay jëlal demal nga xool moto pompe ba ma yore. yi ma yor mais su fekkente ni xam nga su fekkente ni waa ñëwal ñëwal ñëwal c'est-à-dire loolu du lu ñu war a bàkkee maire ah. ay maire moo jël ci poosam dal di jënd machine mhm. xam nga loolu nekkul lu ñu war a tiitaroo mhm. xam nga machine yooyu ngay wax mhm. ñu ko c'est-à-dire que maanaam dayoo bañ ko bëgg a yóbbu nekk non attends suñ ne maire

même bu fekkee dañ war a toog waxtaan. xool mhm. fan la ñuy utiliser ay moyens. c'est-à-dire que tey le problème même bu le maire amul possibilité. du budget bi. Uh-huh. maire dafa am maanaam li ñuy wax ay prérogatives yoo xam ne. am tamit mhm. war a am ay ouverture yoo xam ne tey ñaata société lañ am tey dans la commune. mais est-ce que demuñu société waxtaan ak ñoom. parce que xam nga dem ci société xam nga loolu. ñu jox la machine. waay su fekkee ne da farata nga leen war a wax. waaw waxoo leen soxla askan bi leen wax sa bopp. waaw suñu waree def. Hmm. dootoo leen sañ a wax joxoñ kon da nga bëgg a wax maire bi bu ci société yi la fay waxal du waxal askan bi ñun ci dëkk bi la nekk non dama bëgg non dama bëgg foofu mu leer xam nga man wax dama ne la waaw di wax ne ma waaw nañu machine waaw ak gasoil tout non attends wàccee ay nit ci biir kii bi da ngay déglu hmm. sëñ bi gis nga nañu sérieux hmm. askan bi dañ leen yërëm

na xol situation bi nit ñi ni ñuy demal quartier bu mel ni Dimat. Mhm. dugal Samsam. demal mhm. daru salam mhm. demal Fora. na xol demal Jaksaaw. na xol nit ñi ma na jënd na moto pompe. ni comme si que nang koy waxé qui avec des personnes yo cest à gis nga nit ñi. Hmm. yalla dafa bëgg dëgg. Hmm. moo tax ñu ne kulul haq wala kaana mu ok bu dëgg jotté mais est-ce que ben moto pompe la ah, wala ñaar moto pompe la. xam nga fi machine fi am yépp ouais les sapeurs pompiers ñoko fi tek ñoko fi tek te sapeurs mais est-ce que maire ben machine rek la jënd. parce que lool tamit ku yaa ma jox information boobu. dama ne la tax ma dugg. xam nga yow yaane ma. waaw. manam nenañ dafa génne ci gafam jënd moto pompe waaw yow waron nga laaj. waay moto pompe ba ñu jënd. waaw ñaata lañ ko jëndé hmm, hmm xam nga man buma la waxé ne la Mhm. indi naa machine. Mhm. man machine bi ma yor. Mhm. ak quatre-vingt bi ma yor. ak yu ndaw bu ci nekk mën naa la wax prix bi la muy jar. wax la machine bu nekk capacité. mais non loolu gouverneur moo la ko jox non attends déedéet bu fekkee dañ ma ko jox. waay man indi naa loom ñoom luñ indiwul. xam nga tey bu ma demee ba man ab ab ab simple citoyen. même ku ma ko munti jox. qu'importe. l'essentiel amna ay pexe. Hmm. gis souffrance bi population bi di dund. ma baye sama sama sama sama lépp. Hmm. dal di dem di dugg di génn. Hmm. ba indil askan bi lo xam au moins mën na soulager. kon xam nga kon man gatché ngalam kon donc. boo ma bëggee wax ko xam tay man comme ni ma koy waxé comme dañuy wax ne man mënuma jënd vélo pédale. té ma ngi tabaxi école. di di di defar yeneen. mais na nga dem mu doy partenaire. non mais mais mais attends. très bien xam naa ne dinañ fi ñëw. même ça même même état état li muy réaliser. ouais lu ci ëpp ci ay partenariat la koy def. d'accord accord xam nga tey adduna bi ni muy doxee coopération mo fi am. d'accord nekul nekkul xaalis xamni nit ki moo koy génne ci posam def ko ci askan d'accord accord xaar ñu profité ak euh, ak ak temps bi. li nga wax non amna solo mais est ce que tay Abdou Samad mi nga xamanteni en connaissance Samad ñëpp xam nañ ko ci walu inondation mm-hmm. est ce que jotul bu période hivernage di jot di ñëw mm-hmm. mu dem rencontrer. Uh, acteur politique yi nek ci biir jamm gën ci kamba yop ne leen nañ tok tok waxtan euh trouver solution nan lañ wara war askan wi ci population est ce que lolu Abdou Samad musso ko dama lay wax ne la man yalla daf ma dimbalé lepp lu may wax rek damay bëgg suba suma digënté ak suñu borom ak sama euh en 2014 ouais yi Coumba Ndoffène ñëwee fallo fallo ok té ku ci nek ci ñun Mhm. yàlla am na fu la mën loo mhm. am na loo xam ne tey suñu suñu borom bu ko dogalee mhm. dañ koy nangu waruñu fi toog di seet ay problème appartenance pour population bi ci jafe-jafe yi ñu nekk ñu toog di xiiroo di ŋaayoo tout à man aw ma woon gis-gis boobu man maa jël sama téléphone on maanaam Ndofène ne ko dama la soxla explique ko li ma ko soxlaa mu ne ma d'accord nangul naa la ko

su ñëwee dañu seet nan nañ koy gàttandoo. Mm-hmm. mais mu rafetlu ko. Mm-hmm. ñu oo délégué de quartier yëpp. Mm-hmm. oo ñëpp ñu daje à la mairie. man mii maa ko coordonné. dox ko ba lépp sot yàlla seede na loolu. ay nit ñëw ne ko kii dafay ut fu mu wéeru kii su su su la jegee. dafa bëgg ñu ñu koy tudd wala leneen ak leneen. léegi bañ bëggee defar ñu ne dañuy defar coordination. Mm-hmm. ma ne leen même bu ngeen defar coordination man li ma intéressé. Mm-hmm. mooy nañu fexe rek ñun ñëpp ñu nekk dans une dynamique unitaire. tout à fait defar lépp mu baax. Mm-hmm. fexe ba ñun ku ci nekk ñu nekk la main dans la main. fexe ba tey problème bi askan bi dund. ñu seet ñu koy saafara. mais xam nga lu ñu wax. way samat bu mu coordonner parce que dafa bëgg pour fu oui ok ma dugg ci xelam yàqu ko. indi ay problème uy ma. ñu ne léegi ñoom bon ñoom dañuy préféré. gérer ko seen bopp. bon leen amul problème man li ma amaloon solo. moy mhm. que ne man ku xam. Mhm. awma ma temps wu ñëw di wéru ci nit. tout à fait ci inondation. Mhm. pour luma luma lu mais dama jàppoon ne tey suñu boolee suñu doole. day gëna jëriñ askan bi. mais comme non nga gisee. man y a pas problème ci la jël sama responsabilité. dal di dem fi ma wara a dem. dem ñew mais après. gis nañ conséquences ñom parce que nam daan démé rek. ak ni mu démé tay dem di uti ay matériel di ko indi. mu leen di jaaxal parce que tay tey nag li ma lay wax mhm. jëyuma suma bopp parce que nit ku nekk ak la mhm. la yàlla defal mhm. ku nekk la nga mën yàlla moo la ca dooleel te man li may demee ak li may lijjanti muy sotti yëpp ndimbalu suñu borom la mais ci dool loolu ngay wax man maa defoon les premiers pas dem vers moom pour loolu am mais pour des problèmes politiques ak peut-être ñenn ñi jalousie bi ñu amoon que ne sama peut-être bu jegee maire ci yenn affaires yi ak yu mel noonu peut-être dina am lu mu leen may wax yaa ma gën a xam mooy les les les les caïmans ñi nga xam ne c'est des vautours. non su ma la kon mais da nga maire entourage am lan nga leen mën a tuddee. parce que parce que dafa am loo xamante ne tamit xam nga suñ toogee. di def émission nga tudd ko day mel ni kon moom ñi ko entouré ñoo ko jaxase ak yow wala nu mu demee noonu quoi. Hmm. su dañuy wax dëgg. te yàlla tax.

Diamaguène Sicap Mbao ñu am mhm. solution durable loo xam ne solution définitive lay doon mhm. ku ci nekk am nga sañ-sañ ni mhm. fii laa bëgg a far ok yaa ngi dégg Emmanuel Macron nekkutoon ministre en France mais bi mu demee ba soxla dafa taxaw ne man dama soxla mm, te terewul nekkoon na ci gouvernement wu bu François Hollande kon donc nit ki am na droit am mébét bu rafet ci gox ouais. par exemple situation wu école samsam sam mhm. ni mu meloon mhm. ku ci nek gis jafé jafé xalé yi xale yi mënatuñu jàng mhm. Abdou Samad amul dolem mom kessé mu ne kon na fexé ku ma xalat ku mun def lu rafet ma impliquer la waaw foofu sax fofu sax bëgg naa ñu dugg fa ci affaire sur parce que temps bi li ñuy xëccool xam na ne ko yi ñu wara développer bari na hein. maanaam li ma lay wax sank même suñu di état yi suñu amé projet da ngay gis ay BAD moy ñeu indi lii banque mondiale indi euh AFD indi lii. Hmm. noonu la affaire yi doxee. Hmm. ba dajale nga liggéey. Hmm. tamit boo nekkee danga bëgg a defar dëkk. il faut nga am ay relation ok maanaam relation yooyu noonu. da lay permettre. yenn yi nga xam ne parce que li ngay def dafa loo ko sa bopp nekkul kër gooy jënd wala oto gooy jënd mais c'est juste maanaam loo xam ne koy def askan bi ñëpp bokk ko kon da nga ko ñun ñoo bokk commune Diamaguène Sicap waaw su ma amee idée bu rafet lu war a defar commune bi waaw maanaam day nekk tey obligation ci man ma dem wax ko ku ma mën a doon parce que tey boo calculer bi may def sa setal bi invité naa ay ay ay ay ay waaw maa ngi ñëw ci sa set setal bi mais dama bëgg tuuti ñu taxaw tuuti ci aspect mairie bi. parce que tey Abdou Samad candidat la ci euh, ci élection yi di ñëw. Abdou Samad gis nañ ne parrainage amul d'accord mais ñu ne euh, caution 10 millions plus ay campagne frais de campagne mm-hmm. Abdou Samad est-ce que am na moyen bu mu demalee boppam loolu. xam nga yàlla yor lépp. non non xam nga cadre yàlla boo mu bindee. non ci cadre yàlla xam nga dama ne. waaw. àdduna man li may def ñëpp naw ma ci. waaw ndimbalu yàlla la. waaw. Euh, Barack Obama. waaw non baal di ma yóbbu à l'étranger. parce que dama soxla. non dama lay wax. xam Barack Obama dafa ñëw ci parti Abdou Samad ban parti la man dama yor suma mouvement. sa mouvement. maanaam mouvement bi xam nga mooy nu mu taxaw mhm. taxawu askanu jàmm gën si kàmm waaw. maanaam tey. bokkul ak Sénégal maa féete non non Sénégal maa féete loolu wàllu développement la. développement la comprendre nga li ma la. Mhm. tey lépp lu nekk soxlawu askan bi mhm. tey ñun dañu gëm ne. Mhm. mbir mi du mbiru parti politique. xam nga mbir mi lan la. seet la nekk njëriñ pour askan bi mais ñun tant que togg ñu jóge ci. ay mbiru ay problème de parti. mais nak parti politique moo fiy la plupart est-ce que gisagul le Sénégal mouvement Sénégal. amna mouvement fum gagné gañeegum ci parti ci ci. élection maire mouvement mouvement. non bari na Sénégal comme ban maire. non même bo démé ay Sokone ay Petit Gueye. Bo démé ay. mouvement la démé. ay kungel. non mhm. c'est-à-dire mouvement ngay créer. mais da am pour parti politique bu la boot. loolu hmm? c'est-à-dire loi bi moko wax. même bu dé da nga am ce mouvement. Euh, sur le plan juridique. manam mhm. faw nga am manam li nga xamné moy keuyit buñ la abal. manam keuyit ba sax bu la nexé ci kii administrativement la rek. mu la nexé nga ut sa tur bu ñu lay ooyee. donc lolu mom mo ci nek tay bo démé ku Koungheul ki nek tay euh, Mayacine Camara. Mhm. avant muy nek ci parti bu baax mais mhm. ki la demee. cest à mbir mi problème de ngëm-ngëm la. problème gëm ne tay li war nga ko mën yor. yow gëm nga ni boo demee élection di nga ko gañ. wa mais yow tamit yow yalla moy joxé yalla wax na ko si sax non manam yow est ce que yow wolu nga sa xam nga yalla ñun ñep mën nañ jital mais est ce que wolu nga sa bop ne carrément yow bo démé maire 2021 bi ni 28 mars 2021 abdou samad moy tok ci mairie bi yow gëm nga lool yow samad mais dego li man expliquer yalla daf ne nguur mhm. le pouvoir m'appartient ouais je le donne à qui je veux jam bi xam nga lu am mhm. sabab mais voilà mais nak ci bir sabab ba mhm. nga yaakar yalla gëmal ne mën nga ko am parce que dafay damay dégg ben mag mu ne ma ki am fit. Mhm. mooy ki wóolu yàlla. tout à fait. mu ne ki nga xam ne nag dafa am pas-pas. Mhm. mooy ki yaakaar yàlla mais li nga analyser nii wax ko. su fekkente ne ki toog ci mairie bi wax ko yeneen candidat yi wax ko. su boobaa non xam nga. ñun en tant que. un euh, consultant lan la ñuy fan la ñuy gisee. xam nga dama ne la waxuma la rek dama ko teg xam nga yàlla même ba muy yónni yónent bi. Mhm. ba yónent bi di jógee. màkka di gàddaay. daf na ko jëlee say matuwaay. loolu la ko wax kon xam nga ne amoon na pouvoir ba mu koy yóbbu baytil maqdis mhm. na dafa jël ji man daal tey sama su waxee mu yóbbu ma Barack Obama su ma waxee mu yóbbu ma France su ma waxee mu yóbbu ma Màkka tey sama dafa ragal te waaye quoi man loolu laa gis parce que non samat xam nga xam nga tey man dafa am benn samat bu ma xamoon samat boo su taxawee ne la man la xam bërki dem waxtaan nañu waxtaan bu am solo dama ne xam nga dama ne la li ma la wax hmm. cest à dafay am cër yoo xam ne place yu yàlla la je comprends bien li léegi nag man duma tomber ci piège. nga mhm. yépp suma bopp. Mhm. di wax di fàtte suñu borom. ok duma ko mos a def. Mhm. parce que euphorie du ma jàpp. parce que man Abdou samar ku ma xool may dem. xam nga ne dama am dimbalu yàlla. dëgg la gis nga askan bi nga xam ne mooy jàmm gën si kàmbaaw. boo gisee tey fiñ ma bëgg niñ ma bëggee. niñ ma fonkee. te joxuma kenn ñaar dërëm. am am cofeel ci man. da ngay xam ne mbëggeel boobu. mbiru suñu borom la nekkul loo xam ne. ragal la. parce que ku ragal. du sumb li ma sumb très bien xam nga damay fekk mbir. Mhm. ñu ne mënul nekk. Mhm. jox la exemple école Sam-Sam. 15 mhm. ans école bi ci ndox la nekk. xam nga lu nit ñi waxoon. mais sama est-ce que école bi tooñoo parce que yaa ngi tabax te amoo autorisation maire amoo dara Samat gis nga ak ak tamit maire. Euh, moom moo fi suñu suñu njiitum réew mun naa kon donc moom da nga war a jaar ci moom par autorisation mais mais mënoo ne maa ngi wax ak gouverneur maa ngi wax ak préfet di wax ak sous préfet donc. aw ma affaire ak maire ci ñoom laay jubali ñu signé. mais dafa am loo xam ne moral. mais loolu est ce que teg nga ko ci am loo xam mhm. lu tax cest que ñun école bi bi ñu mhm. am yoon yu ñu jaar. waaw cest mhm. xam ne la pour suñu askan. nga taxaw ci waaw ma taxaw. waaw te aussi. bay dugg école te jaaruma war a jaar. ça dama lay. mais lu waral liggéey bi. nangu ko ci yow. maanaam man. école bi dafa am li ñuy wax directeur de école. waay am li ñuy wax comité boo xam ne. mooy comité des parents d' élèves. waay ñoo bi may mhm. sumb ci école bi. Mhm. dama toog ak ñoom. Mhm. dem ànd ak ñoom ñu dem ba IEF. waay ak ki nga xam ne mooy inspecteur de l' éducation. bi yore arrondissement Thiaroye. tout à wax ko mébét bi ñu am. ak yéene bi ñu am pour defar école Sam Sam. mu yegg ba ci IA. ku ci nekk.

man la ma doon xaar ci moom. Mhm. tey même bu loolu amoon. dafa mel ni yow Ndofène amoo leen problème personnel ah. non mais man ah, man man ku ma xam xam ne man dama am xol bu rafet. man du parce que suñ leen woowoon tey yéen ñaar. ngeen waxtaan non non li ma see dama ne mhm. loolu nekkul débat xam nga mhm. man la ma gëm. man loo may wax wax ma askan bi. waaw mais Ndofène ci askan bi la bokk. merci beaucoup moo tax man. voilà lépp lu may wax. doo ma dégg ma sosal ko. ok doo ma ma waxal. non mais dama ni est-ce que tey suñ leen toogoon. suñ leen tagoon toog bi lan moo koy sabab. suñ leen tagoo toogoon ngeen waxtaan. maanaam toog bi lan koy sabab mais comme Macky Sall tey ni mu toogee ay opposants waxtaan ak ñoom. ci ci ji jafe-jafe yi am ci Sénégal. kon tey donc yéen tamit yoon la ngeen toog ngeen saafara jafe-jafe nekk ci jàmm gën si gàmba wala ku nekk day xëcc rek. xool def nga ko d'accord mais sama lu baax. kenn du ko def benn yoon. man. Hmm. ma, maa jëloon paa yooyu ji njëkkee ko. waaw la bëggoon ak la amoon yéene. waaw amul. léegi comme amul. du te bu vers yow non moment dama am lu sama kanam. lan bi. non non non. kanam avant may wax man je pense d'abord mhm. à la souffrance des populations. maanaam jafe-jafe askan bi di dund. loolu loolu on attend loolu. Mhm. moo ma ëppal importance ay toog ak ma Samba ou ma Demba. mais ci askan wi la bokkul non attends déglu ma déglu ma la. man aw ma problème boobu xam nga lu ma am problème. moom moo yor budget bi. non attends déglu ma la moo yor budget bi te budget boobu mënul jëriñ population bi. foo jur na ah jàmm gën si Kambaaw gaa yaa ngi jooy. plan loo wax gaa yaa ngi suñu suuf si ñu ngi koy caxat caxate. suuf bi waaw yow mais yow gis nga terrain bu njaay. non dama ne xam nga non tontu ma ci question boobu gis nga gis nga da nga ne suuf bi ñu koy caxat caxate gis nga nga terrain buñ fi jaay damay man abdou samad waaw lépp lu may wax waaw ci preuve ko dem bi fan yi di ñëw waaw bu ñu ci nawet bi waaw di nga dégg loo xam dina dina dina ki say maanaam ci wàllum terre ñawal ñu ci tuuti ma ñu exclusivité bi El Vision fi la lépp di leeree samad moom laa lay essayé dama ne suñu jógee ci nawet bi waaw ba def ba jeex am na lu xew lu ñu lu war a feeñ. da nga may exclusivité boobu da nga may exclusivité boobu laa la dama ne. Hmm. am na loo xam ne tey su ma ko waxoon jàmm gën si Kàmb Mbaaw. te hmm. danañ ko wax. ndax du ah. ñu toog li ñëpp bokk. ay nit jël di ko pàccoo. Hmm. te loolu day jeex. est que nekkoo di profité ci élection yi war a ñëw. non non man man ku ma xam man man te xam nga élection yaa koy wax. xam nga man ah. man tey fi ñu toll nii. Ah. soo demee ba man tey niveau bi ma yor. yaa ngi dégg baax li ma la. nit ñi sax dañuy tey dañuy da ngay daje ñoom ñu ne la maire Diamaguène Sicap Mbao baa ngi nii. mii la ñuy wax maire. ah bon ah bien sûr. parce que yow nee nga yaay maire. yaay l'homme fort. yaay Messi. Ah. mais léegi Maram Sarr mi nga xamante ne daa bëgg dem maire. am na samat non nga xamante ne moom laa bëgg laaj tey samat. Euh, nee nga da ngay dem élection. incha te gis nañ ñoo xamante ne tey yéen ak yaak ñoom da ngeen am ay relation yu rafet. te ñoo xamante ne tamit dañoo soxla mairie bi mais tey suñ la woowoon ne la bàyyil ñuy dem nga topp seen ginnaaw. waaw xanaa waaw. man ñi ngay tudd. waaw man jàmm gën si kàmbaaw moo ma ñor. waaw doxuma ci lu dul soxlawu. non dama ni suñ la tegaloon beneen candidat. il moo ñuy bëgg a xool man jàmm gën si kàmbaaw dinañ ma choisir kon kon fi mu toll nii keneen ku munti ñëw doo topp ci ginnaaw. non mais mooy demal boobu élection dañoo lima ma mën da nga gis li mën fii da nga gis mën fi mën. ah da nga xam yéen ñoom politique ay Malick Diop mi ngi sotti suuf Ibrahima mi ngi toog ci télé yi di développé euh, ku mën Ndofène wàccee na fi équipe ah ah ñoom Pape Gueye gars yëpp ay Yaxya Fall ah candidat yi xamul ñu ci biir ja madame Balde ñoom ñëpp actuellement ñu ngi ci commune bi di yëngatu léegi ñun ñëpp nga bëgg leen a yow nga ne yow la quoi l'homme fort Messi dama non loolu mënul leen échappe sax parce que espace tout à fait. ku jox nit cër laa. waaye te àdduna gisuma lu may dugg. mën hmm. naa ko ci. dëgg la. parce nag dama la wax sànq ne. Hmm. lépp lu nit mën. Hmm. na ko la dëgg la. te Sidy man Abdou adduna du neex mukk mhm. ba ma bàkku ni man mhm. saa da nga wax ci wàllu politique wax yenn réalité mhm. ma ne la li may wax sax day may parfois dinaa mal placé wax ko mais jëlal micro trottoir nga laaj waa jàmm man mën biir na ma ne ak quatre-vingt-dix pour cent de la commune soo leen waxee ci Abdou Samad danañ ne jàmbaar la yow accord yaa ko tabax mais jàpp nga ne bu élection amoon nga gañe ko non loolu mbiru loolu mbiru suñu borom non mais ba may mais nag tey moom damaa waaru ci Samad non non

sen mmh. avenir nek en jeu kon donc day nek obligation ci man avant may xalat waxu mère man lama gëm moy l'avenir de nos enfants mais nak mais nag sama da nga may nongul benn affaire ak yi ngay posé yëpp acte yi ngay posé yëpp politique tamit bax jot da ci am nam na ci wàll parce que tamit nekkoo di def rek pour que après bo élection joté gaay folli la non dama né bel ya ngi def mais bëgg nga tey su élection joté gaay yi votel la il faut nga nangu loolu tamit moo tax waaw nañu bàyyi ba ele beneen émission. waaw. boo xam ne dañ koy def rien que. politique pour la politique. <laughs> bu boobaa sama daal tey mi ngi may mi ngi daw ah, question yi. non xam nga lu tax. man sama dafa dem kaw la ñu formaté waat ko. du loolu xam nga tey. wala gars yi seen remontada bi ci ndox mi moo la moo la xaw a kii. fi ñu toll nii. Ah. fi ñu toll ah. bi moo tax sama ragal. luy remontada. ah mais gars yi. ah man kilifa laa. dëgg man boo may tudd. Hmm. dafa am ñoo may booleel. mais comme ñun. ah non yooyu tamit man buy ma tey booy tudd football koy tudd ci àdduna. Messi yow yaa Messi. sawar kàddu gi wuju. yow yaa Messi yaa la euro yaa monsieur le maire. ah, ah? incha allah. waaw d' accord sawar kàddu gi wuju gi. ah waaw mais xam nga rek di kontaan. <laughs> Oh. yéen. ci lu am solo lii. Mm-hmm. non Samath bëgg naa la laaj question boo xamante ni. sama euh, réalisateur bi mu koy signal dama koy fàtte. muy sa diggante ak waa El Vision muy télé bii ñuy waxee tey. <laughs> yow dafa mel ne El Vision yow yaa ko moom wala lan la sa diggante ak El Hadj dafa am loo koy bokkal wala lan la def El Hadj Lo oppo ñëpp nee nañ El Hadj opposant la dafa contre maire da koy jàppale mais Samath loolu lan nga ñu ci mën a wax comme ça nit ñi ku ci quoi parce que ko

dama laaj. yow non man samat man man man daal man damaa waaru ci samat quoi. danga ma ne ne M waaye. ku xool ni ñuy doxee. waaye. xam nga ni ñoom nañuy doxee. Hmm. soxla nañu. non mais El Vision moom El Vision moom ñëpp la fi nekkal. muy Abdou Samad xam nga ba produit pour yi sax. ku ñëw dina la taalal suñu micro. waaye. quand je dis produit maanaam que du ngeen dem ci mukk koo xam ne di ngeen ko tàllal seen micro. Hmm. loo xam ne luy yàq la wala ci par. waay waay man. Hmm. ñaata si un an. xam nga hmm. ñaata émission laa def Sénégal. bari na. bari na waay ci SKL vision rek laa ko def. non xam nga ñaata émission laa def ITV i rajo. xam nga ñaata émission laa def RFM. bari na RFM ci trois mois. def naa ko trois émissions. ok du dëgg. seen TV. seen non mais sa diggante galaas boobu lan la lan la. waaw kon xanaa ñooñu. dafa leen di man man ma wax la léegi ne la tey man Abdou Samad mhm. li may liggéey mhm. su ma ci namee dem ba war a jox ab journaliste mhm. pour mu mën ma defal maanaam ma am li ñuy wax buzz kon gëmatuma suma mais mais mais ñu attaqué fi El Vision nga ñëw porter combat bi parce que ñëw yanu ko wala ah. te man gëmuma loolu waaw mais gis ngeen nag suñu émission bi ndox mi mu ko koy yàq

moo taxoon ma dugg ca. mais man dugguma ca woon. parce que lan la El Hadj may tàllal micro wala hmm. déedéet. sa diggante ak El kon dara nekkul. yàlla seede na ne. ok El Vision la ñu boole. mooy liggéey. très bien ma nekk ci sama liggéey ñoom ñu nekk seen liggéey. très bien su gisee ne la may def. Hmm. maanaam ñoom soxla nañ ko. Hmm. ñu ñëw. man bu ma gisee la may def. war nañ ko war nañ ci jot. ma woo comme na may ooyee ñeneen. ak ñeneen wala ñeneen di ma oo. ma leen wax ne yow. Mhm. sur le plan médiatique. Mhm. bokk naa ci ñi nga xam ne ñoom la ñuy gën di jël ci rajo ak télé. très bien Samat loolu am na solo mais Samat Samat sa ndox mi arrêté ko bokk. voilà non ñu ngi def suñu émission. ndox mi ñëw fii du ñu kii quoi. incha allah balaa suba. waaw boo ñëwee doo yu bari. dëgg la boo xoolee tey bokkul ak ñu fekkoon kon tey gis nga ne ñu ngi progressé mhm. di dem di jëlee ndox mi foofu mhm. yeneen machine yi aussi ñu ngi dans des autres angles li mhm. ngay toogee fii léegi oto baa ngi noonu dem di jëli yeneen machine kon donc loolu ay seede la yoo xam ne yéen maanaam mun ngeen ko firndeel d'accord sawa taagu xoj nañu taagu xoj nañu taagu xoj nañu vraiment kàddu gu mujj gi waa jàmm gën si kaam mbaaw waa ñaan aussi yàlla def jàmm allahumma amin allahumma amin ci ci maanaam dëgg la ndeysaan amiin di ñaan suñu borom ku ci am rek jafe-jafe. yàlla na hmm. ko suñu borom saafaraal. amiin amiin amiin ku ci nekk aussi bu dee tawat la. Hmm. wala mbiru adduna.

ah mbégte ak contentement lañ alamoon tey pour dalal euh, Abdou Samad nekk un de développement un homme politique ci diwaanu Sénégal laay wax ah vraiment parce que tamit ñëpp lu nañ liggéeyam ci inondation depuis vingt ans mosul découragé mi ngi ci tout le temps suba ngoon guddi bëccëg nekk ci donc loolu tamit lu ñuy rafet lu la lu ñuy saluer la ñu nekk luñ fi kenn lu ñu gis la ñuy wax. su defoon leneen tamit loolu la ñuy wax bu defee lu baax tamit dañ koy wax kon donc El Vision Médias ñi ngi nuyu ñi ngi ñi ngi ko am contentement surtout ci diwaanu Diamaguène Sicap Mbao bi nga xamante ni porte bu ñu fëgg rek gars yi tijjul ñu ko encore une fois maa ngi lancé waat euh, benn appel muy monsieur le maire Coumba Ndoffène Fall soxla nañ la aussi ci suñu plateau pour nga wax ci wàllum inondation bi yow ak sa équipe yëpp loolu noonu soxla nañ ko yéen ñaar plateau ah, waxu ko waxu ko dégg la war nañoo bi. très bien xool. waay waay même bu waxtaan en huis clos baax na. di ñaanal ñëpp jàmm na. très bien waaw léegi non non doon huis clos. huis clos non na nekk fii ah plateau. Ah, sama wóolu nga sa bopp de. ah, ah. ah waaw mais kon monsieur le maire message baa ngi noonu ñu ngi rafetlu jotaay bi nag di gërëm aussi sama doyen sama caméraman di gërëm aussi elvision Vision Ndiaye Diatta mi nga xamante ne aussi mi fi équipe bu samat bi di def liggéey bu am solo gërëm nañ ñëpp ziar ñëpp merci ba beneen yoon merci.